ak sama xarit ànd ci Alaaji As Diagne maire honoraire de Ngaye mexe ànd ak euh, Cheikh Sall maire de Mewane ànd ak euh, maire bi ñëwoon muy maireu Baba Garage ànd ak honorable député euh, honorable au conseiller Diakhou Ndiaye mais fekk fi aussi ah, ñëpp et li ñuy mën a wax li sama xel fàttu woon mooy que ñoo ngi remercier particulièrement l'armée parce que le général Cheikh Wade Ngaye la dëkk football fii ci stade bi tey mu yónnee ñu armée pour joxe ko en exemple de discipline parce que nee na armée fu mu dem day joxe exemple discipline joxe exemple fair play commandant Baro mi mu yónni mu ànd ak fanfare militaire bi ñëw jàppale waa Ngaye mooy dafa bëgg a joxe exemple rek wax ñi man Cheikh Wade fii laa football mais fii laa bokk mais li ma nekk nag mooy exemple discipline réew mi damaa bëgg xale yi di football inspiré wu ci pour gën a mën a am discipline di sant nag ñi nga xam ni ñëpp. ñoo ŋànk sport bi ci biir dëkk bi di ci jiital nag Lamine Niang mi ak sunu président commission sportive euh, Mohamed Thiam parce que ñoom c'est des exemples euh, de c'est des exemples et c'est des dans la gestion du sport di wax ni donc ñoo ngi sant également le général Moussa Fall muy doomu ngaay nekk fii bëgg dëkk bi di jàpp ci dëkk bi loo xam ne bëggul kenn wax ko aussi parce que ñoom fi la ñu football fi la ñu dëkk kon jàppale nañ dëkk bi tey bu buñ taxawee aussi ñëpp seen nit ñi taxaw fi pour ñu gën ñoo jàppale dañ leen di sant bu baax a baax di sant doomu ngaay yi ñëw yëpp di sant président idée mi nga xam ne depuis huit six heures mi ngi fi muy président omor Sock ak ñi mu àndal ñëpp di wax ni ngaay daal nii la Kajoor nii la terroir bi nii la Sénégal ay Sénégalais ñoo koy defar ci jàmm ay Sénégalais ñoo koy defar ci détermination et ñun ñëpp nañ leen takku nekk benn say daal di sàmm jàmm jëmbat jàmm bu na amee jàmm na ku nekk dina mën a liggéey suñu liggéeyee suñu réew jëm kanam. waaw euh, discipline moom li wax xale yi mooy fair play ak discipline ñaari équipe yi football tey yëpp samay équipe lañu benn bi mooy équipe bi koñ bi ma juddoo benn bi mooy équipe bi ma dëkk kon ku gagné pour man rek baax na na am ku gagné rek waaye li ma bëgg mooy ñoom ñëpp ñu mucc football ci jàmm mucc ci jàmm ñu joxe coupe bi ci jàmm ñu dem léegi nag Sénégal moom nii rek la ngaa itam nii rek la nañ leen continuer liggéey bi ñun ñëpp ñu ànd yéen médias yi aussi ñoo ngi leen di sant lu xew ngeen ñëw couvrir parce que réew dafa war a am ay média la presse importante war nañ leen di saytu bu baax di leen sàmm di leen jox seen gëdd et loolu dafa importance lii ngeen taxaw nii mooy wasaare li wax e ñoo ngi leen ci sant bu baax a baax. waaw léegi ñun suñu euh, euh, kii projecteurs yi am na presque at. léegi xale yi nangootunoo football bëccëg sax guddi rek waaye sunu mbébét mooy ñu def fi pelouse synthétique à très court terme loolu mooy sunu ambition te ñoo ngi ciy liggéey war nañoo tukki ci kanam tuuti rek pour jéem a waxtaani ñu nu ko mën a defal buñ ko defee nag. ba stade bi mel ni ma yokk nañ fi terrain handball def nañ fi terrain basket ah, et donc gis ngeen ko ni mu yànje defaraat stade bu yëpp def ci gis ngeen gradin yi gradin yu be sàq la et mu am sécurité ñu daal ci yokk pelouse bu pare nag ñu dem uti leneen muy peut-être un stade omnisport kenn xamul ci ñaata at waaye ñoo ngi góorgóorlu pour defaraat dëkk bi. mii Mimi Touré génn na am na coow de def na recours léegi ñoo ngi bàyyi justice xam nga justice moom lu muy traité dañ koy déglu et bu leen dégloo ba pare nag. ñu am opinion mais fi ñu toll nii comme ñoom ñoo ngi wax nee ñu du nii nii la war a demee dañ leen déglu ba nu pare bu nu dalee nag ñun ñu joxe suñu opinion kon loolu mooy taxawaayu citoyen mooy taxawaayu responsable politique mooy taxawaayu aussi koo xam ni kii dafay bëgg di sàmm li nga xam ni mooy li nga xam ni mooy yoon mais ñuy doxal aussi li gën a xam ni mooy yoon pour dëkk bi jëm kanam et ñuy saytu sunu juridiction di saytu sunuy loi pour que mu méngoo ak ni nga xam ni moo gën a rafet ci doxalin sunu candidat mooy ku Benno Bokk Yaakaar choisir mooy ku APR choisir kooku la ñuy jàppale suñu defee suñu investiru candidat ku man di doon ñu jàppale ko ñu def continuité continuer liggéey dëkk bi parce que suñu coalition jàppale na dëkk bi réew maa ngi dox Sénégal moom kenn du ni doxul moom ku mën di wax itam Sénégal a ngi dox déwén ñun rek ñooy réew moo xam ne ñoo ngi xaar croissance à deux chiffres ci Afrique amul benn réew mu koy xaar kon nañ leen gën a yokk nag gën a saytu gën a yokk investissement yi gën a sécuriser investissement yi gën xeex ndool bi pour que nit ñi gën a am ay amélioration de condition de vie ni xale yi gën a am liggéey industrie yi gën a tàkk agriculture bi gën a dox élevage bi gën a dox Sénégal bu ñu koy xaar ci deux chiffres dina mën a am deux chiffres consolidés yoo xam dina mën a dem ba ay croissance yu nekk ay douze pour cent loolu la ñuy ñaan. président Macky Sall moom waa Ngaye dañ ko naan gàcce ngalaama parce que defaral nañ lu bari loo xam ni communes yu bari amuñu ko mais doyul kenn du doy la ci département bi itam bëgg mu yokk ko ndax ñun. am na nañu cadre de consertation Cheikh Sall mi mooy vice président bi maanaam taxaw na fi taxawaayu cadre de concertation président la ci AMS commission ma nekk ci président donc taxaw na fi taxawaayu AMS taxaw fi taxawaayu cadre de concertation du département. dañu bëgg président Macky Sall yokk li mu def def na lu bari ñoo ngi ko ci sant bu baax di sant gouvernement bi waaye nag lu nu gën a yokkit ñu gën a bëgg courant bi gën a yokk ndox mi gën a yokk tëli yi ñu sumb pare boole ci bu baaba garage. bu cilmaxa tëjul ñu géej gi mais defar ci commune yëpp ba ñëpp tolloo parce que terroir la ñuy wax ñun terroiru département Tivaouane la ñu bëgg suqali defaraat ko président mi ngi ci def bu baax gouvernement baa ngi ci jàpp waaye doyul na gën a yokkaat loxoom ñu gën a santati ñoo ngi sant donc ñëpp Magatte Wade maire commune Ngaye Mekhe vice euh, président commission économie et développement des collectivité territoriales bu AMS vice président ARD et donc moo leen di wax ak yéen di leen dalal nag di leen sant yéen médias bu baax a baax a